amal nañu ab a ah ak defar sa gox ah. yéen gi nee na en tout ñii ñëpp ni ki démb dugal nañu ay recours ci xam ne mooy conseil constitutionnel ah ngir nag ñu yëy yàppee ci li nga xam ne moo jëm ci élection législative xam ne moom la ñu dëgmal journal bi nee na coalition benn bokk yaakaar ñoom li tax ñu def ab recours seen liste bi nga xam ne dañu ko annulé loole la ñu ñu daal koy delloo waaye tamit waa benn bokk bokk ci ñoom tim xam ne dañu ko gàntal ñu daal leen koy delloo waaye tamit waa yeewee dugal nañu ab recours boo xam ne nee nañu coalition benn bokk yaakaar waruñoo bokk ci élection yi su dee nag nga xam ne ñooy waa wàllu Sénégal ñoom tim recours bi ñu dugal nee nañu coalition benn bokk yaakaar ñoo wurta bokk ci élection yi bu dee nag Bougane Gueye gëm sa bopp ñoom bi nga xam ne dugal nañu ko maanaam mooy mboolem juróom-ñetti liste yi nga xam ne wax nañu ne da dem ci élection kenn koo xam ne respecté yi nga xam ne moom la ñuy nekkee loole la ñu war a bàyyi ndax amul benn sens ñi nga xam ne nag ñooy waa wàllu Sénégal ñoom nag jamono ji ñoo ngi alerté ndax nee nañu lii xeeñ ci réew mi bu ñu fi nag di dof doflu Sénégal mën naa dugg ci musiba ma ba kumba giraawaali goo xam ne danañu si bëgg a génn mu daal të yéen i kaay gi di la quotidien nee na lu jëm ci wàllum investiture yi ci coalition benn bokk yaakaar Macky nag dafa toroxal ñi nga ne ñooy ay alliés bañ a tot gi di réew mi quotidien nee na nag ñii nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall nekk ci réew mi di jéem a dof dof lu di kan a kannasu bu ñu fi jéemee forcé maanaam suñu néew la ñuy jaar yéene kaay gi di wal Fadjri nee na en tout cas li am ba de Sall lii xeeñ ci réewum Sénégal neexul te bu kaawoo amee ci réew mi maanaam bu mu leen bett bu ñu fi nekkee nag di jéem a rejeté liste nationale bu Yewwi Askan Wi lu ne mën naa xew ci réew mi du samay kàddu damay nettali waa Walf Fadjri ñoo ko xëyee yéene kaay gi di la vrai nee na bi nga xam ne moom la ñu dëgmal nee ma ajjuma la waa coalition Yewwi Askan Wi di fas yéene amal nag seen mobilisation sa place de l'Obélisque journal bi xëy fësal ci xëtam en tout cas jàmmi jamono ji nañoo wax ne ma ngi ci loxol waa conseil constitutionnel la yéene gi di bés bi bàyyi mbir moomee wax ci gi nga xam ne moo xewoon ca Tiwaawana ba fukk ak benn ci ay liir daal di fay ñàkk seen bakkana kuréel gi nga xam ne mooy SUTSAS dib syndicat bu yëngatu ci wàllu wér gi yaram gi ñoom nag daal nañuy xappati ñetti fan yoo xam ne dañu koy gerew ndax nee nañu ñoom seen naataangoo yi nekk ca Tiwaawan dañu leen a bëgg a sànk te lale ñoom duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg Yéri Camara mi nga xam ne mooy secrétaire général général bu SAMES nee na substitut bu procureur bi nga xam ne moo yoree bi dafay nekk di xumbala maanaam di def show ak di waaye nag ñoom nee nañu loolee yëngalu le na yéen gi de la sa nee na sage-femme ak xam ne ñoom la ñuy joxat bi baaraamu tuuma ci giraawaali gi xew ci Tiwaawana niki démb am nañu ab retour de parquet yéen i gi di Rewmi Quotidien nee na Tabaski gi en tout cas waaye nag pomme de terre bi jamono ji ñu def réquisition téléphonique bu Adji Sarr ak Sidi Ahmed Mbaye maanaam guddi ñetti fan ci weeru février atum 2021 ak décembre janvier ak février 2021 waaye nag loolee nga xam ne avocat yi Ousmane Sonko nañu ko sàkk woon parquet bi maanaam da leen ko lànkal nee ma procureur jamono ji nag doyen des juges maanaam moo yor cëgul yama avocat yi Ousmane Sonko lañ si jublu woon bu ñu defee réquisition téléphonique boobu nag danañu xam ñu waxante guddi ñetti fan Ba daan ne xëy si Farba mi nga xam ne këram dañu faa sàcc lu toll ci 890 millions loolee bëri na ana nan ko mën a ci ak kër bañ koy sàccee yéene kaay gi de la nee na en ki nga xam ne mooy Farba Ngom war na ñoo laaj nag ab laaj kii arrêtera Farba Ngom maanaam Farba Ngom mii kan moo koy arrêté mi yéene kaay gi di Dakar Times nee na ñi nga xam ne ñooy ñu bàyyi bi tux bi lu toll si juróom-ñetti millions ci ay doomu aadama dagg gang fa mel ni tulleeg male benn weer am na ñett nit ñoo xam ne rey nañu leen fa yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar mbir mu doy waar a doy waar nee na place su mère dañu faa bett ab élève ak ab étudiant ñuy siim seen maringaañ yi a kaay gi nee na ñoom ñaar dañoo daje fi nga xam ne mooy place bu mère Moussa waaye nag benn waay bu ñuy wax Fallou Mbaye moo leen fa bett da doon doxanto leen fa bett nag ñuy def li ñuy def dafa yolleeku ndànk nag dem ci gendarme